nga jéggal ma nag nga jéggal ma du ñëpp nan nu dimbali gis nga Sénégal bu tàkkee vraiment neexul ba neexul journaliste yi ñoo ko taal dégg nga suba suñu xëyee ñu fabriqué seen benn wax boo xam ne danga koy teg defe ngeen ni Ousmane sunk ñàkk na fayda ñàkk fayda goo xam ni dina def yenn yi nan waxante dëgg nan waxante dëgg moom amul problème ak moom imam bi amul ak problème ak moom waaye lu mu def tey bu ëllëgee ñu def leen ñuy jël wax jooju di ko def buzz nan wàññi wax ji te xool li am importance ñu di ko wax man li ma gën a metti ci Sénégal dafa bari ah lu yoonam ci moom ah moom moo dafa waye di bay tax muy dem ci moom di mu di ko kii wala mu di ko def leen da ko gën a dëkk ci dëkk bi moom imaam la kii nekk bëgg réew bi amul problème bu ñu jël affaire qualité gi ñu jël que di ka di indi beneen wax boo xam ne jaxase fii dóor fee tàpp fale journaliste yi nañu dimbali dina nu taal Sénégal te dafa dafa am quelque yu koy def du ñëpp de ndax ñi ngi bind tey ñi ngi bind tey naan Ousmane sonk mi ngi mel ne jigéen boo xam ne xaw ma lan wax gis nga kàddu xool ko buñ la ko waxee ki ko bind na ko xool buñ ko waxoon papaam wala ñu wax ko yaayam vraiment wax na rafet. yal na nu yàlla musal ci journaliste bu jël bigam ak fëyam di bind di wax lu bon ah te bu bu yàggee affaire yi seen kaw lay këpp nan wax wax ju rafet vraiment sonn nañu yal na leen sunu àq daal parce que ñoom ñooy taal Sénégal gis nga journaliste mooy defar réew mooy yàq réew nan dimbali président bi nan ko dimbali nan ko dimbali ah moom moo sol te jotu la bu ko sola sa morom gis nga bu ñu ko defoon dëkk bi day neex waaye tey imam bee xew ah te bëgg nit ñi am loo xam ne da koy wax imam bi ñu yaakaar ni ñeneen ak ko wax fekk na ñoom ñoo ñoo indi problème boobu nañu dimbali ngir yàlla lii laay war a suuli te lii ma wax yàlla na ko imam bi dégg yàlla na ko dégg yàlla na ko dégg yow réew lañu journaliste bi bind lii mooy kenn ki nga xam ne toujours mooy bind lu bon li yàlla nu yàlla musal ci moom te yàlla ko fi yàlla jël nu gën a gaawee ñoo xam fu mu koy yóbbu nag kenn mu dellu bi musal lu mel ni may wax nag affaire affaire dem waxtaani bii gis nga loolu bu leen sonn loolu am na ba pare bu nu yaakaar ne Ousmane xamul lépp nax na nu seen bopp nanu groupe rek nan leen dajale benn place moom fa mu toogoon ba tey ma nga fa ku dikk ànd ak moom mu ànd ak yow ci moom bëgg-bëggam mënoo ko nga dem dóori marto toog muy dox ak di lijjanti sa affaire nit ñi dofuñu de li may ñaan mooy population Sénégal ñu ngi jëm ci ci ci ci ci côté boo xam ne côté bu doy waar na Sénégal yëpp jóg taxaw xam ni seen réew ñoo ko moom te nu dimbali nu ngir yàlla ñu xam ni seen réew ñoo ko moom topp ci gannaawam gën ko dooleel ndax moom réew mi la bëgg gis nga genre gi mooy ñi nga xam ni bu nu jëlee réew. benn màndaa la ñuy def benn mandat teg réew mi ci yoon dem noppaliku ci genram gi noonu la hmm. naka ñëpp jóg taxaw te dinañ ko taxaw Ousmane lii mu fii mu jaar yi yàlla moo ko dimbali te yàlla dina ko gën a dimbali li mu ne askan bi laa àndal wax na dëgg xëy na ñoom ñoo ñëwoon pour dugg ci biir xool lu ñuy am ak lu ñuy kii ci dëkk bi la dëkk xam na di xew moom moo leen gën a informé wu waaye boo ñu xam loolu baye boo ñu xam loolu ku bëgg a retraité demal yoon waa ngi noonu kenn téyewu la ñun moom ñoo ngi fi di xoole rek jël suñu bët yi ni ko xujj ndax ñan ne la woon ña yewoo daanu ci seen kaw ñëpp yewu senegaal naka ñépp jàppale naka ñëpp taxawu ndax taxawu ko mooy taxawu senegaal ndax lu ñëpp lu ñëpp bokk ñépp jot ci ñëpp féex nit ñi lekk naan faju te bañ a déglu ñi nga xam ne suba suñu xëyee di leen divertir bu leen leen déglu Aminata Touré nag jigéen la jigéen la seetlu soxna si xoola Sénégal ni muy doxee seetlu nga ko mhm. ay nii def Aminata Touré gis nga bu neexoon jigéen ñi délégation jigéen ñooñ nga xam ne dañu am benn côté yoo xam ne yu nuy dem ak yu nuy bàyyi lii ñu koy menacé nii su leen neexoon ñoom ñëppay jóg taxaw ne bu mu fi amee mais ñoom ñëpp a ngi di tekk Sénégal bul weddi dara loo xam ni bu nit ne dañ may bëgg a def nangam lépp loo xam ne Sénégalais yi daal nañu wax naan lii du fi amee tey ñu ngi koy gis di ci teg seen bët bu kenn xeeb dara jël leen seen bët yi ni xujj lu leen waaye wax dugal leen ko ci seen nopp yi te bàyyi ci xel te taxawu kooku jigéen la buñ ko menacé mu bind ko te seetlu leen Ousmane ñi muy àndal est-ce gis ngeen ñoo xam ne toujours dañuy toog naan ñi nekk ci kaso yi génne leen leen mais moom mii fu mu waxee même international bi buy wax ak ñoom day wax ñi nekk ci kaso bi génne leen leen xëy na li mu nekk yaay moo tax te nit di nga nekk fenn gis li ngay gis te mënoo ko réglé waaye soo génnee taxaw temm tax xam ni dëkk bi dafa am fu mu nar a jëm nga taxaw wax li am loolu taxul nga ànd nit ki mm-hmm. tey su defee noonu tey mu taxaw wax mu taxaw wax ni dañ may bëgg a def nii vraiment waxuma la sax Ousmane mi bind article boobu waaye ñëpp a waroon a jóg bind jàppale ko ci loolu jàppale nit ki taxul nga ànd ak moom man waxante dëgg man moo xam ne léegi dëgg gi dëgg daal problème la Sénégal moog sàcc sàcc gi moom dañ nga ko validé ak fen ak lu bon waaye loo ci gis tey réew maa ngi nii man naka jekk dama mas a wax. li ñuy commencé nan ko arrêté nan ka arrêté te wallaahi sama wax ja gis nan ko tey tey fu nu demee ba nga xam ni awra jigéen dañ koy jël di ko tekki mbedd mi ñu nekk jàpp papay jaambur yaayu jaambur di ko wax yenn yi di ko wax yenn yi te toujours yi ñoo woo teg la derrière nag tey na wéy ni nag dugg foo xam ne yéen ñii kenn ñemewu ko cee teg te yéen ñëpp ko yëg journaliste yi ñëpp ko yëg ndax ñoo ngi toog fii di gis lépp waaye kenn ñemewu faa jaar lii laa ci doon bañ sutura sutura sutura nanuy jël lu rafet li ñu fésal ko lu ñaaw li ñu denc ko lii mooy àddina jaajëf yaay lii mooy àddina mhm. lii daal laa ni woon naa ko wax na jigéen ñi Sénégalais yëpp jóg taxaw topp ci gannaaw Ousmane Sonko ndax ñëpp Pastef lañu ñëpp Pastef lañu yal na yàlla sàmm Sénégal te yàlla sàmm ko moom te dooleel ko ba li mu bëgg ci Sénégal mu am ko. Mm-hmm. amiin yaa rabbi ku mel nii nag nañu ko def suñu maman jooju dañu ngi koy jaajëfal bu baax a baax yéen mën ngeen def ni moom woote ci 88 628 73 13 wala ngeen woote ci 08 99 25 24 02 wala ci 77 914 64 93 su ko defee da ngeen daal di mën a participer si bi lay euh, euh, émission di euh, seen kàddu émission bi nga xamante ni moo leen indi jukkil. ay ponk su ko defee ngeen indi ci seen xalaat ci euh, li nga xamante ni moo nekk seen xel ngeen bokk ko askan wi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan jamono juñ toll nii ci loolee euh, tey jii lee le Front mondial de l'économique sociale et solidaire te naka noonu président Macky Sall yëkkati na fa ay kàddu mu mel ni daal ma ngay insister ba tey ci dialogue bi nga xamante ni mi ngi koy daal di woote waaye ci teewaayu maire bu Dakar di benn image bi nga xamante ni jamono ji daat nay loo ci réseaux sociaux bi nga xamante ni ñoom ñaar ñi la ñu ngi daal di joxoon tey loxo te naka noonu président Macky Sall moom mi ngi daal di xam la ni rek li gën mooy joxantey loxo ngir rek mën a daal di doxal Dakar waaye mën a daal di rek doxal fi nga xamante ni mooy euh, Sénégal ci naka noonu muy xam ne ni rek état mënul lépp faaw rek ñi nga xamante ni ñooy collectivité euh, territoriales yi ñu jàpp ñu jàpp si ngir euh, Sénégal mën a daal di jëm ci kanam ci ko noonu gis nañ beneen image mu ci diggante Khalifa Sall ak président Macky Sall mu mel ni daal jamono ci ñu toll nii complicité dox na ci diggante président. Euh, ak ñi nga xamante ni ñooy euh, waa mu nekk li nga xamante ni jamono ji nag ñu bari ñu ngi ci àddu mu mel am na beneen mbokk mu nekk ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam soxna Diarra. waaw sëñ bi nuyu naa la. maa ngi lay fay yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax a baax kooku la Seydou. alhamdulilah man la Seydou waaw. Seydou maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. <laughs> maa ngi lay fay merci. yéen ci jàmm bu añu waa ñu ngi ci jàmm bu baax ñëpp ñëpp a ngi ci jàmm sant yàlla alhamdulilah alhamdulilah Seydou ban jàngat nga am ci ponk yi nga xamante ne indi na leen ko waaw euh, man ma tàmbalee ci ci dialogue bi euh, président Macky Sall di woote mm-hmm. pour man en fait euh, dialogue am na comme am na ku génn sànq d'ailleurs maa ngi leen duy ñoom ñëpp ñuy participer ci émission bi mm-hmm. am na ku génn sànq je me rappelle plus xaw femme bi la ou mais am na lu mu wax nee na dialogue bi am na ba pare effectivement man pour man c'est des pré-dialogues pré-dialogue am na ça je suis persuadé ne am na le mm-hmm. président Macky Sall ñi muy wax kaay la ñu dialogue ñu ci gën a bëri surtout ñi nga xamante ne joxe na woon nañ faveur pour euh, bokk ci dialogue bi man man personnellement je suis persuadé waxtaan ak ñoom ba pare après nag dafa des rek muy mu koy fësal comme ça ñëpp dëgg nañ mu ngi woote dialogue pour ñooñu ñëw ñu waxtaan bon président Macky Sall dafa nekk nit koo xamante ne moom bu jekkoo soxlawul dialogue mais Mac président Macky Sall boo gisee muy woote dialogue rek c'est pour mu légitimer troisième candidature am. Mm -hmm. tout simplement loolu la bëgg. yaa ngi mhm. dëgg te pourquoi mu bugg a amnistier yenn fee yi bu ko defee ñi nga xamante ne bokkuñu woon ci élection yi passé lu mel nii Karim Wade ak xalifa Sall bokk c'est parce que xam na ne fu mu nekk nii moom jeexal na parce que bu mu bu mu xamee ne jeexalul nga xamante ne moom amoon na droit mooy en deux mille dix neuf représenté wu laa soxla wu doon di leen amnistier ah xalaatu ko woon sax parce que dafa doon wax ñooñu dañ koy gêner mais comme léegi dafay gën il faut mu mu mu woo ñooñu pour ñu ñëw dialoguer bu ko defee soi-disant mu amnistier yenn faits yi dugalaale ci suñu alal bu ñu sàcc parce que tey euh, Karim Wade mais mais lu taxoon l'objectif bu taxoon ñu jàpp ko lu lu taxoon ñu jàpp ko c'est parce que dañoo ne dafa dafa détourner ay cent trente huit milliards suñu alal mm-hmm. léegi bu fekkente ne léegi président Macky Sall bëgg na woo leen dialogue mais ce qui est certain ñooñu moom bu ñu demee c'est-à-dire c'est-à-dire leen di jox euh, euh, carte blanche pour ñu mun a pour ñu mun a participer ci élection yi di ñëw c'est-à-dire ñu amnistier leen ñu amnistier feeya bu ko defee ñoom ñu bokk ci bokk ci loo bi quoi bu ko defee c'est-à-dire dafay dafay dafay mel ni c'est-à-dire le résultat estomper euh, kii bu bu ñu soxla woon amuñ ko ci parce que lu ñu soxla woon suñu alal la ñu soxla woon soxla wu ñu woon ñu tere ko mu bokk ci ay élections ñu dem ba quelques années après ñu amnistier mu ñëw dugaat comme si rien n'était ñun alal buñ ko doon topp et tout euh, comme ça mu seey mu jeex. Mm-hmm. mais loolu moo lay won ne ni Macky politique rek lay def quoi loolu yëpp politique moo loolu yëpp politique moo ko laloon yaa ngi dëgg man pour pour man euh, dialogue bi pour man amul sens amul benn sens bon bu loolu passé euh, allo. oui ñu ngi lay dégg Seydou yow rek la ñuy déglu allo. allo voilà mel ni euh, Seydou daal di allo allo allo allo allo maa ngi nii waaw ñu ngi déglu bu baax. oui justement xam naa réseau moo xaw na daw tuuti. Mhm. donc ma ne bu loolu passé ma jëm ci Mimi ture maanaam menace yu ñu koy def mais loolu xam nga mooy seen mënin. Euh, mhm. parti au pouvoir ñoom noonu la ñu mel. ñoom il menace tout le monde. tout le monde seen nit ñi dañuy menace ba ñëwee nag après dañuy wax ne ñun euh, euh, waa Sonko ñoom ñooy menacé ñoom ñooy saaga ñoom ñooy def nii yaa ngi dëgg mais euh, Ousmane Sonko lu muy soutenir Mimi Touré c'est tout à fait normal parce que ci opposition bi la nekk te ñu ngi ko bëgg jaay doole. Hmm. comme Sonko nuñ ko jaayee doole yoon la mu ñëw mu soutenir ko parce que pour man gis nga. dialogue bi ñoom lu mu bëgg lu mu bëgg mooy maanaam dañoo bëgg a euh, mu am ay candidat yu mel ni ay xalifa ak ñoom Karim wadd ak yu mel noonu bu ko defee ñoom ñu légitimer seen seen candidature après bu ko defee ñoom ñu mun a ñu mun a exclure Sonko bu ko defee bu exclure Sonko ak par tous les moyens bu ko defee ñu ne voilà euh, pourtant am na ay candidat yu présenté wu au niveau international bu ko defee ñu ne voilà Macky Sall am na ay candidats yoo xamante ne présent présenté na wun présenté nañu en deux mille vingt quatre tu vois bu ko defee mu ñu jox élection yi sens yaa ngi dëgg ñoom loolu lañ bëgg te loolu loolu euh, population bi duñ ko nangu de toute façon ñëpp xam nañu Sonko moom ils vont essayer par tous les moyens pour éliminer ko ñu disqualifier ko ñoom loolu lañ bëgg te loolu population bi ñi ànd ak Sonko duñ ko nangu parce que euh, Sénégal tey ñëpp ñu ngi wax ne na sëriñ yi wax na ñiy wax na ñële wax xam nga duñu wax parce que ñu bëri ñu gën a bëri ci système bi la système bi la ñu profito de ce fait ñoom loolu moo leen gënal yaa ngi dëgg ci système boobu nag marabu yi ci lañ bokk euh, yenn politiciens yu gën a bëri ci lañ bokk et puis euh, homme d'affaires yi ak yenn kii presse yi yenn yenn patron de presse yi et cetera et cetera ñu bëri ci lañ bokk ñeneen ñi nga xamante nag bokkuñ ci système boobu ñooñu dañ leen di manipuler maanaam dañ leen di manipuler bu ko defee ñu ne ah Sonko du nitu jàmm tu waa hmm. ñooñu bu ko defee duñ ci wax waaw mais Sonko ñi ànd ak moom ñi ngi ànd ak moom de toute façon ñooñu ngi déterminé wu am na ku wax sànq sonk nañ ko dimbale mais bien sûr ñun ñi ànd ak sonk rek ñoo mën a jàppale sonk ñi ànd ak Sonko boobu ñoo mën a jàppale Sonko te man lu ma jàpp mooy comme kii lu mu wax Oscar lu wax sànq xaw ma Oscar ma ko wax xaw ma am na wax mu ne fii benn opposant moo fi am bu dee wax dëgg rek opposant benn moo fi am bu dee am na ñeneen ñaar lay doon wala ñett jeex na mais ñu des ñëpp dañuy wër loo comme sa gis nga bu caaxaan jeexe tey bu ñu demoon bu élection tey am na ñoo xam ne bu ñu éliminer seen candidature doo gis ñu jàppale Sonko mm-hmm. duñ jàppale Sonko et pourtant dañuy wax ne ci opposition bi lañ nekk mais doo gis ñu rallier côté Sonko mais Khalifa Sall gis nga ko en 2019 bu mu nekk ci kaso bi kan la jàppale Idrissa Seck la jàppale. Mhm. mais doo gis jamais ñu jàppale Sonko. duñu rallier ci gannaaw Sonko parce que ñoom ñëpp presque la plupart ci système bi la ñu bokk te système boobu ñoom xam nañ ne Sonko bu ñëwee day dajet ci son système boobu dindi ko sandi ko fële. yaa ngi dëgg sa fekk ñoom xam nañ ne bu Sonko ñëwee ñoom ñëpp ils à la retraite voilà. d'accord man loolu moo nekkoon sama xalaat est-ce que jàpp nga ni ñu gis ñu gis maire bu Dakar euh, euh, Barthélémy Diaz ak euh, président Macky Sall ñu joxante loxo ci from boobu rek est mën nañoo mën nañ ci ñaaw njort wala mën nañu jàpp ni voilà ñoom d'accord nañ li nga xamante ni peut-être démarche bi nga xamante ni président Macky Sall moom lay doxee est-ce que mën nañoo jàpp loolu image boobu rek est-ce mën nañoo am mën nañoo am njort bu ñaaw waaw xam nga man pour man euh, Barthélemy Diaz il est différent de Khalifa même bu fekkente ne ñoom ñoo nekk ci benn parti Barthélemy c'est le maire de Dakar. Mhm. comme maire de Dakar la il faut c'est-à-dire il faut mu mu mu liggéey ak ak ak ak président mhm. Macky Sall. Mhm. yaa ngi dëgg loolu mënu ko bañ. loolu loolu mënuñ ko bañ en fait mënuñ ko bañ que ce soit même keroog 4 avril gis nañ Barth man loolu moom mun ma ko exclure c'est tout à fait normal. mais man kay lu ma mënta nangu mooy. lu ma mënta nangu mooy moom Bart mu fekk leen waaye loolu man ça m'étonnerait ci Bart vraiment ça m'étonnerait loolu moom dina ma jaaxal ci Bart xam nga mm-hmm. Bart moom vraiment jiitewul euh, jiitewul euh, c'est pas c'est pas un candidat yaa ngi dëgg c'est un maire de Dakar mais moom du candidat ci moom mu ngi ci gannaaw euh, kii comment il s'appelle Khalifa Sall mm-hmm. mu ngi ci gannaaw Khalifa Sall te Khalifa Sall lu mu wax moom lu ci munti nekk moom la bokk moom daal niñ ko munti defal na bokk buñ ko amnistie na bokk bu dee dafa diil ak Macky ba bokk na bokk mais loolu dafa rafetul quoi franchement rafetul wax naa fi keroog ne Khalifa normalement mu ngi ci c'est vrai que mu ngi yor partem mais comme mu ngi ci bi coalition normalement dañu war na waxtaan seen biir bu fekkente ne dañuy gis dañuy dem participer ci dialogue bi ñoom ñëpp ñu ànd dem participer buñ dul participer ñoom ñëpp ñu ànd Mm-hmm. mais man je ne vois pas ñu nekk ci coalition bu ñu tuddee yeewi askan bi ñu defandoor lépp demandoor élection législative élection locale c'est vrai dañoo waxoon bu élection présidentielle jotee ku nekk demal boppam ku mën bu ko defee bu dee am nag ci ñoom ku dem deuxième tour ñoom ñëpp ñu jàppale ko loolu lañ waxoon c'est vrai mais mm-hmm. néanmoins ñu ngi ci biir coalition bi ba léegi bon ku nekk mun na woone position am ne dafay présenté wu mais par contre lépp lu ñu def dañ ko war a waxtaanee lu ñu def leneen ku ci ku ci demal boppam def leneen lu bokkut ak euh, ñoom ñëpp ñu ànd rek ça veut dire que euh, bokkut ak principe bi nga xamante ne coalition bi noonu lay doxee. merci beaucoup te sànq am na li nga wax sax fàtte naa woon li ngeen wax ne président kii euh, Ousmane Sonko def na demande pour mu gis rek euh, euh, marabout bi kii imam imam imam grande mosquée mm-hmm. bon après on verra bien man dina ma jaaxal mais bon xam nga réew mi dafa bëri ay rumeur dafa bëri ay ay ay intox et cetera mais bon bu ci kanam waaye ten si comme niñ koy waxee on verra bien ndax Sonko moo ko moo ko demandé ou pas lu ci mun munti nekk. en euh, moom ci kanam raw moom ki nga xamante ni mooy euh, imam bi moom moo euh, doon jàkkaarloo suñu naataangooy Seneweb moo leen jox information comme quoi que ni c'est vrai que ni Ousmane Sonko dafa doon sàkku pour gis ko waaye moom dafa fekk ni du recevoir këram. bu recevoir nit jumaa ja la koy euh, jàkka ja jumaa ja la koy recevoir muy grande mosquée euh, ndax moom jàpp na ni du du du sëriñ ab imam la te képp ki nga xamante ni daf koy ñëw seet si jàpp na ni ci këram la koy la koy recevoir euh, ci jumaa ja la koy recevoir muy kàddu imam Samb ginnaaw bi nga xamante ni mu ngi doon jàkkaarloog suñu naataango yi donc moom loolu la daal di wax moom moo ne carrément Ousmane Sonko defoon sàkk pour seet si ko. oui mais mais loolu moom moo ko wax nañu xaar version Sonko benn. deuxièmement ça dépend. ça dépend lu ko soxla euh, Sonko soxla. Mhm. parce que nit la rek. après mhm. imam aussi nit la euh, n'est-ce donc soit ça dépend mun na am soxla boo xamante ne moom peut-être grande mosquée la koy war a recevoir mais mun na am soxla diggante nit ak nit aussi boo xamante ne pourquoi pas mu recevoir ko këram mais ak mhm. lu ci lu ci munti nekk rek attendons bien pour voir ndax loolu Sonko ci boppam dina ko confirmer ou pas n'est-ce pas lu ne dëgg nañ ko fi fii lu ne dëgg nañ ko fi du imam boobu moo taxawoon doon wax euh, ku ku dee ci euh, ci manifestation yi safara nga jëm du moo ko waxoon. Mm-hmm. Mm-hmm. am déet. Mm-hmm. Euh, ba voilà moom xanaa moom moo yor caabi caabi safara ak aljana boo xam ñu fay dem ak ñu fa dul dem <laughs> ah. ah? waaw <laughs> loolu moom merci beaucoup Seydou ah xaw xaw ma xaw ma maami Oscar la xaw ma. <laughs> waaw maami Oscar la nag de. <laughs> waaw xaaral ma bay ma bay ñeneen ñi ñu participer. merci beaucoup am na solo nga nuyu waa Paris yëpp ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waaye am na ñu bari ñu ngi laajte ndax information boobu dëgg la fii duñu fi traité man boog duma traité benn xibaar bi nga xamante ni peut-être gisuma ko ci samay naataangoo ñu bind ko waa Seneweb ñoo doon amal waxtaan bu yaatoo yaato ak Imam Samb. ci naka doonu mu daal di confirmer que ni Ousmane doon na sàkk ngir seeti ji ko donc voilà mu indi lan moo tax recevoir ko këram et tout donc yoon la aussi comme euh, gis nañ imam Samb ci koy teg yi polémique bi nga xamante ni amoon na ko ñenn ci askan wi doon ci àddu ñu ne pourquoi pas ñu ndax ñun moom suñu liggéey mooy indi xibaar yi loolu doog mooy suñu liggéey donc euh, voilà mu ngi noonu mën nga mën ngeen woote ci 88 628 73 13.